mais évidemment loolu ñu ngi koy naqalu ñun defuñu sax cortège waaye toog rek oote rencontre citoyenne ci ay béréb mais ñu indi ñu difficulté ne déet amu leen autorisation bu leen fi toog wala boo laajtee autorisation ñu la la non da xaar ba kër wala lii dee da nga ko laajte ci ci jamono yu xat doog loolu yëpp ñu ngi koy dund loolu du benn yoon ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax waaye nag ma wax la dara sénégalais buggul kumba am ndey kumba amul ndey bàcc am baay bàcc amul baay kon loolu nag sénégalais yi ñoom lañ koy dénk ñoom lañ koy dénk nag bés bu ñu ñëwee ba war a voté nañu sanctionner injustice ndax loolu waru fi euh, waru fi des li li nga wax am na solo ndax ci dëgg-dëgg opposition am na wàll boo xam ne waroon nañ ci mën a ànd ñëpp waaye xëccoo bi dafa bari ci opposition sénégalaise te dafa mës bari ñun ñii musuñu génn ci saa yu ñu jóge war jëm ci ay élection di oote rassemblement ndax dafa am loo xam ne ñu ñëpp ko bokk buñ ko bokkee nag dañ ciy ànd di ci xeex waaye lu néew néew néew bu taxawee rek nga bàyyi sa sa sa sa ànd bi ngeen di band ngeen di ànd daal di indi leneen xuloo seen biir loolu day day day faciliter travail Macky Sall Macky Sall bi muy oote dialogue li doon mbëbëtam dëgg dëgg dëgg mooy tas opposition ndax élection bi li mu wanoon ca élection législative mooy Macky Sall amatul majorité kon bu fekkee ne biir opposition nangu na ne am na ñoo xam ne bëgg nañu dem dialogue am ñoo xam ne bëgguñu fa dem nañu bàyyi loolu des ci li nga xam ne lii moo tax ñu mën a ànd mooy xeex élection libre transparente inclusive lépp tegu ci yoon waaye bu fekkee ne yow dem nga kon du ma ànd teeg yow mais loolu duñ ci génn kon Macky Sall mooy am ndam